fekk na Cheikh Issa Dieng naan na kaas moom toog keroog la ko sëñ Tuubaa seexal keroog la ñibbi. tey ce que. waaw fay sax dal. kaas boobee. sëñ Tuubaa yoroon kaasu ak ay la doon defal mbokk moom it yëpp keroog defaloo fekk ko toog mu jox. Ah. keroog la seex ba tey. nga xamante ne ku dul sëñ Tuba ëpp koy doon. billaahi te sëñ Tuba ak ko jox sëñ Tuba ko def. est-ce que. waaw kenn du mën sa bopp. foo mën a nekk ci àdduna rek lu la sëñ Tuba jërlul rek lu mu la jërlul xamal ni. moom doo ko jaral lool waaye sëñ Tuubaa lu mu la jaral rek moom ci jëm boppam jaral nga ko ci Louga te ku ko mos a jox sa doole ak sa alal ak sa waxtu dala koy delloo ba mu jeex ba wis la fekk da ko reñu yoo xam naa ba tàyyi ni sëñ Tuubaa li may jox ni yëpp dafay wis wis rek ndax suturaal nëbb sa ayib baaxal la jubal la boole la ak adduna bi yëpp maral la ak mbindeef la ko ci loxo loxo ci loxo mbindeef la ne kon ki la wutal mbindeef yëpp tàggat leen ñu nangul la ànd ak yow bëgg la nangul la toj hmm? kooku doo mën sa wet mu tële wetam est-ce que

sant bu ngeen sant benn sant nañu fukkam waaw sant bu ngeen sant benn sant nañu fukkam waaw suñu xol sedd na sedd gu métti gu bari sax ndax ñun seen i bokki taalibe rek lan duñu dara si seen tuba duñu dara si jëfu seen tuba duñu dara ci kanamu seen tuba yi teg ci ndax seen tuba yow yaay yaa koy defaral ba defaroo ci yaa koy liggéeyal ba yëkkatikoo ci yaa koy xëyal ba ñu la ciy xëyalee nga xam te ni jëf ji nga koy jëfal ci ngay defaroo xëy gi nga koy xëyal ci ngay yëkkatikoo ci ngay baaxe ci ngay amee lépp adduna ak alaaxira sa lépp ci ngay defaroo kon ñun bu ndee seeni mbokki taalibe ngeen di ñu yëg ngir sëriñ bi ngeen di ñu yëg ngir yëkkati xasida gi ñu koy yëkk xasida yi ñu bokk te ñun ñoo ko bokk suñ coow moo ko bind bàyyee na ko ndax dafa wax sëñ Masamba Mbàkke ak sëñ Modou Diop Masamba ak sëñ Mor Roqaya Bousso ni leen kenn ku ne na dem indi xasaay yi gëm moom te bañ a indi gum moomul kenn ku ne indi xasaay yi gi nga moom mu wut ba sangu romb jaan lal ko ci ñu teg ci xasida yi mu ni leen seen borom dafay yónni Seydina Jibril di ma woo ak tukki ma jëm ci te xaw ma kañ lay dëpp ni ma bis naka tey def ak dindi nekkatul ci sama loxo naa ko def ci xasida yi te ñëw wuyu ko. est-ce que. sëñ ma roq yi bu solo ko wax. waaw ak sëñ ma Diop Massamba ak sëñ Massamba Mbacke. Mm-hmm. bàyyee nu xasida yi. booba nag lim ci xam. sëñ Tuubaa dafa xam ni. dana am ñu ñëw di ko gëm. yaakaar ko bëgg ko wóolu ko bëgg am ngërëmam bëgg koo liggéeyal mm-hmm. bëgg am payam ki te duñ ko fi fekk. duñ ko fekk jëm ji. mu fab baatinam bu tedd boobee ak barkeem bu tedd boobee ak dooleem jàkk kàttanam ji ko suñu borom dëppoon mu def ko ci xasaay yi di bàyyee ni ko mhm. kon xasaay yi di bu ñu ko bokkee ñun ñëpp ba noppi ñun ñu di ko yëkkati xëy na ñenn ñu di ko durus di ko déglu ñu bokk ko ngeen di ñu safoo di ñu yëg di ñu mayu yëg ba di ñu boole ci seen bopp ak seen jataay ak seen waxtu ak seen yëg-yëg loolu beneen yëg-yëg la ñun tamit ci ñun dañuy yëg ni ñun tamit nekk gi ñu nekkoon ci sëriñ bi yàquwul wala nekk gi ñu nekk ci sëriñ bi mhm. noo nga ca lañ war a ne ndax mbokki taalibe bu ñu demee ba yëg ñu ci li ñu ne di ko rafetlu ah di ñu boole ci seen jëmm ndax li ñuy defal sëriñ bi di ñu dugal ci seeni waxtu ngir li ñuy defal sëriñ bi hmm? ñun tamit dañuy yëg ni loolu ndekate mooy li ñu waroon a def lépp mhm. mooy li mooy li war a def. mooy li mat defe def it teg ci. te def-def boo xamante ni jox naa la daraja joo xamante ne nii boo doon julli baa ngay woor. lu ko may du tax nga am ko. kon daraja jooju. def-def boobu nga doon def yow. loo ko mën a yokk da ko yokk. suñ jëf yii nag da koy yokk li tax mu di ko yokk mooy suñ dee seen mbokki taay ba bokk ak yéen seen Tuubaa. bokk ak yéen xasaay ji. boko gi len yoon wi waye sun borom baxé na nu yëkkati xassay bi ca kaw ngeen diko ko déglu te mokkal ko niñ ko mokalé wala gën ñu ko mokal wala gën ñu ko xam bu nopi di ko apprécier ba di tiré attention su ñoom ba di ñu boole ak seeni dëmm ak seeni waxtu loolu fay defaat ñun tamit benen benen fa beneen wat dañuy wat beneen soññe beneen soññe mm-hmm. bu biir bu rëy bu xam le ni ñun lii ñu nekkoon am na dëgg la dëgg la it am na njariñ te du ay neeni tekki mukk du neen waaw loolu absolu moom may bu kon nag loolu moo tax ñun tamit mm-hmm. ñu di ko bégee mbégte mu rëy jëf yi ngeen jëf mm-hmm. ak woo gi ngeen woo ci seen bopp ak seen jëm waaw rawatina buntu bi ñu boole. muy Serigne Saliou Mbacké. ñu bokk ko ak yéen. te Cheikh Béthio di ci suñu jëwlu ñun ñëpp. ndax Cheikh Béthio jëfam si Serigne Saliou dafa mel ni lu àdduna bépp bëggoon te mënuñu ko. mu defal leen ko. ndax Serigne Saliou xëy na ne woon nañ ko suñu alal. yéene ko suñu doole. yéene ko suñu jëf. yéene ko suñu njaboot. waaye loolu lépp Cheikh Béthio defal na ko ci moom. wax naa ko it ay yoon yoon loolu boolewaat ñu teg ci ñu bokkal Serigne Thialou nga xam ne fu ñu a ne fu ñu mën a yendu it te Serigne Thialou la ñuy fanaan ci biiram la ñuy duggaat hmm? kon jëf yooyu dafay dem ba nekk jëf yoo xamante ne dafa muy dugal ñun ñëpp ci benn buum likkinu dugalaat ñu ci biir Serigne Saliou Mbacké waaw te loolu mooy sant yàlla bi gën a rëy ci nit sant yàlla bi gën a rëy ci mbindeef ndax mbindeef bu dee def dara ba bokkam yi mu ko séqal di ko ci apprécier ah di ko ci safoo loolu muy def dëgg la loolu muy def man ca yoon wax kon na waaxu na soññu <laughs> na farlu te bañ a geesu te bañ a geesu bu baax a baax xam ne loolee mu nekk mooy yoon wax foofee mu aw mooy yoon wax <laughs> foofee mu sóobu mooy gàtt kon loolu ndimbalal yàlla moom courage moo tax nag kon ñuy bëggee jotaay bi dinañ bëggee it bu baax a baax waaw waaw ci am mbégte mu tedd mu rëy moo xamante te ne am na tàmbali waaye amul yem waay ndax àdduna lii rekk solo si leneen amu ci solo xamante àdduna bu fekkoon ni am na solo xamante mooy solo si ndax àdduna mbindee fee fi nekk yi ak garab yi ak montagne yi ak dex yi ak géej yi te montagne yi benn du ci déplacé wu di fekk sa morom pour fasante moom wëllëre te bi leen ko yàlla tegee sax dañ koo ragal attanuñ ko mm-hmm. déjà dañoo dawoon responsabilité bi mm-hmm. garab yi it benn du ci jóge fa nga nekk di fekk sa morom mm-hmm. garab yi ma bàyyi ngaay ñoo ngaay ñoo ngaay man fa la fa la <laughs> garab yi ma bàyyi ibisa ibisa ma jóge leen bàyyi garab yi ma bàyyi Éthiopie ak Argentine fa laa leen bàyyi rawatina garab garabi France yi garab gu ci ne fa nga ne yaa fa waaye tey aéroport France bi recevoir na des différents ethnies des différents personne yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi jóge fa garab yooyee nekk nga nuyoog sa morom ci aéroport bi ngeen xamante xam ni adduna aleykum salaam aleykum salaam xam ni adduna bu fekkoon ne am na njariñ xamante mooy njariñ bi xamante bi ci ngay mën a jariñanteeg sa morom ci ngay mën a am amlanteeg sa morom ci ngeen di mën a taxawale sax lu ngeen di liggéey ci adduna kenn ku ci nekk ci ngay mën a renfor renforcer mm-hmm. sa sa capacité mm-hmm. bi nekk ci yow moo xam lu mën a doon nag mm-hmm. ci xamante bi ngay xamanteeg sa morom waaw te sëñ Tuubaa dimbali ñu ci jàppale ñu ci tekki ma defal na ko ci xasaayit yi xam ne bis bu nekk xasida yi xamale des centaines de milliers de personnes yoo xam ne xasida yi rek leen xamale da ngay jàng kii di déglu rek bu ñu seetaan si bëgg kii daanu hmm. kii may ko ndox kee téye ko hmm. bu ñu paree xamante dafa sante woon bu tuddante ci ay doom di dem lente di fekk leen lente di dëkkante hmm. ñun ñi tey kenn bokk teg sa moroom nday ak baay waaye xasida yi ak seen tubaab moo ñu boole tey ba ñu suuleewu ba kenn ku ne di jariñ sa moroom nga mën di jariñu ci sa moroom <laughs> sa morom di la jariñ te xam-xamam ak xelam ak kàttanam ak alalam ak wërsëgam yow tamit nga mën koo jariñ ci sa xel ci sa xel ak sa kàttan ak sa wërsëg ak sa waxtu ngeen di jariñante loolu sëñ bi moom dimbalee defal na ko nag jotaay bii wax dëgg yàlla jotaay la boo xamante ni man bëgg naa ko lool waaw bëgg naa ko lool bu bare bare ndax renforcement de capacité la. dëgg ndax xamante naag nit ñi ma xamul woon. Hmm. nuyoo naag nit ñi ma nuyoowul woon. Hmm. xamit bi su yokk la. ma hmm. xamoon pare siidi rek tey xamaat naa ñeneen ñu bokkul ak siidi. xam loolu yokku la njariñu la. doylu ko la. loolu dimbalu yàlla xamante boobu valeur lay teg ci. ndax wax naa la saako ne la xam ba xam jeex xam nit ci gën. xam nit ba xam nit jeex nag xam nit ku nite. moo ci gën moo ci gën. nit te nit rek la nit ku doonu jullit di ab taalibe bu la yàlla tënkee nag ci cadre nite. di si la dara. ndax yàlla suñu borom wootee mu njëkk ba dana yaa ayyuhan naas yaa ayyuhan la wax. nit ñi lay bind ñëpp ñëw. ku bokk ci naasu rek. ñëw nga taxaw suñu borom taxaw naasu taxaw. suñu borom waxul naasu waxul kenn waxul suñu borom toog ba mu yàgg dem yoonam naasu yi dem. mu dellu woote waat ne yaa ngi xel na. yéen ñi nga xamante ni gëm. yéen ay yéen ay gëm yi. way gëm yi dëkk taxaw seen borom taxaw. lu yàgg seen borom waxul ñoom it seen borom dem ñu dem. mu dellu woote waat nag daal di yaa ulil albaab. borom xel yi. borom xel yi ni jaas taxaw tàmbalee waxtaan ñoom. loolu lu mu ñuy doyee. waaw moom heure bii lu lu muy woote <laughs> ak lan ma war a doon soxlaam ba muy woote <laughs> dafa war a gaaw nag ndax yàgg nañ fi torop mu ne jaas fekk leen ñuy xomtoo mu ne xam naa ñii laa doon soxla mu ne jaas taxaw ñu ne ko loolu ñu doy mu leen wax góor woo naa fi ay kuréel yu bari hmm. waaye waxuñu ma baat bi yéen ñii laa doon wax ñu ne ko loo ñuy doyee Mhm. mu ne li ma bëgg ngeen ragal ma. itaqullah dëgg jël naasu. Mhm. jël amanoo dugal ko ca. yaa si ko. ñoom borom ngeen dem seen ngeen def seen kéemtulaay kattan. ñu ne ko suñ ko mënul nag mun leen laa tukallifu nafsan illaa wus'ahaa yéen maa leen bind kenn ku ci nekk xam naa sa sa degré xam naa li nga xam naa li nga attan sa capacité kenn ku ne xam naa sa capacité maa leen bind yéen xam naa leen kenn ku ne doos bi ma la dosage bi ma la defal xam naa ko cooy ñu ne ko kon nag jàppale na ci te buñ ci topp nag ñu ne ko dañuy juum nag dañuy fàtte it dañuy sonn yi détails yi waaw suñu borom ni leen lu ngeen man nag def leen ko rek la ca des ko def ci sama yërmande ak sama doole mottalee ko muy li ma soxla waaye yéen bu ngeen demee nekk leen ci li ngeen man loolee nag lépp sëñ Tuubaa ko dëxëñaat defal nu ko ci xasaayit yi boole ko ak moom mu yàgg di muy yar di defar di jubbanti eh? xasida yi moo nu jubbanti tey yar nu tey mm-hmm. defar nu tey nga xamante ni am na ci ñu bari ci ñun bi ñu jógee seen kër ndey ak seen kër baay bi ñu demee ci àll bi wala bi ñu demee bokk ci benn kuréel ci kuréel boobu lañ defaroo dellu seen kër seen waa kër di leen yéen mm-hmm. mm-hmm. feex na dëgg hmm? noonu la demee nga xam ne jàng te sëriñ bi du la jox dog booy wérd déedéet du la joxit looy sangoo xasida gi moo xam jawartu la wala saana ilaah góor da ubbi nii rek jàng tëjaat ci ja ubbi gi jàng tëjaat gi rek ngay defar ci ngay defar mm-hmm. wala déglu gi toog di déglu rek xay soxori at aw côté bat aw nasira mu defar sa jukko defar sa deret defar sa langage defar sa toogaay ba noppi nag di la booleeg ay nit bis bu nekk nga bëggu nga bëggu teg ci doon xale bu yiw doon xale bu am kersa ami teggin amul yar ku la gis bëgg la xam loolu lépp sëñ Tuubaa ci xasaa yi di la ko def ba noppi bàyyi ko ak ñun na te amul droit d'auteur amul dara looy fay. yow daa bañ ñu la ëpp na waaw amul lu ciy yàqe amul lu ciy wàññee. lépp njariñ la lépp njariñ la. Hmm? ndimbal lu toll noonu ko ko am war a sant. ndax suma ah. jotaay bii tey. Hmm. xasayit yee ko fonde. ak sama jotaay yépp man. Ah. fu ma am jotaay rek. Hmm. xasayit ko fonde mu ma fa yóbbu. fu ma dem rek xasaayitu ma ko yóbbu. est-ce que demu fa fenn fu ma xasaayitu yóbbu. xasidati faqat xasaayidal kiram. wali taqudu abadan xayral maraam. Mhm. xasidati faqat xasaayidal kiram. ولتقود أبدا خير المرام خسدتي فاق خسائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل الملك كان المنا سيان واخساء الملك ما توجه النصارى الله ليبي لا إله إلا ذاه لا وخلو أمس ولا سيناك سيناك سيناك سيناك آه، سيناك سيناك فوفو فوفو فوفو سيتي ديكتي كلاي دوغي لي بن باك macha allah muy haajat xasaayid yi xulubul malik xasida yi tax nga am ay jataay mm. xasida yi tax nit ñi fonk la xasida yi tax ñu bëgg la mm. wéetu ci alhamdulilah ci ndax bu seexul xadim ne haajat yëngal na xasaa idi sama xasida yi xulubul malik xolub malaayikal illahu ya nga xam ne ñoo jege seen xam ne ñoom bu ñuy jàng xasida yi dañuy jaayu ni sëñ ak saa di jàngee wala sëñ si di ngay ming di fa tosu noonu lay def xolu malaayika yi kon mm-hmm. wéetu ci li sëriñ bi bëggoon ci xaside yi muy toppatoo gi ak sellal gi bokk na ci li nga xam ni moo leen may li ngeen yori ñun ñi jàng jàngati xaside yi ndax man kat euh, fii mu nii léegi damaa tàmbale jàng xasida daa xam ne damaa ba ndax koo jàng man tamit fi moom na nangu ko léegi muy loo xam ne bi ngeen di ñëw da ngeen a fekk ma ne sama gaa kilifa bu toll ni Seexul Xadiim ak lim daj ci boromam ak ni ko yàlla nangule nga xam ne noo mën a mel foo mën a bokk bu fekkee am ngam xel ci yaw li albaab di nga waxoon di nga xam ne Seexul Xadiim yàlla nangul na ko koo mën a doon nag moom danga nangu de Seexul Xadiim yàlla nangul na ko mu wax ne kitaabati xaaimatul maqaama seexin mu raqib yi xagul maqaama sama téer yi day ommat kenn ma mat jëm ci yàlla di ko jox ay maqaama yu kawe yoo xam ne sëriñu tarbiya bi nga yaakaar wala bu tarxiya mënu laa jox maqaama ni toll te kene xatti ya yuusilu muridu tarbiya mm-hmm. Mm-hmm. di si jalaali loolu la ñuy wut àgg ci yàlla xasida rek moo la mën a yóbbu fi yàlla subhaanahu wa taala moo tax ndokke noonu mm-hmm. ñi koy yëkkati ak ñi koy durus ak ñi toog di ko dégg ndokke noonu ndax dafa am mbag bu baax mu jëli ci ku tedd mu nettali ma ne maanaam ci misaal ndax mbiru suñu boo ci wax am na jamono boo xam ne bii ci misaal rek mën a wax ñu ko dégg dafa am ay ndaw yoo xam seen daa kawe loolu fi yàlla mu mel ni dañoo dem ba àgg ci daraja ak maqaama moo xam góor yàlla yu bari jaarañ fi mun ko am <laughs> mu mel ni ku baax ki dafa génn gis leen <laughs> mel ni xam du xaw a yéemu ci ñoom